ci alxames ji dëppook ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril atum 2021 di fukki fan ak juróom benn ci weeru koor atum 1442 ginnaaw gàddaay yonent bi salallaahu alayhi wa sallam Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides am gan gu mag goo xam ne ma nga bàyyeekoo ci réew Mauritanie ci dëkk bu ñu naan Boutélimite di Cheikh Sidi Mouhamed Youssouf Ould Cheikh Sidi baaba di sëtu Cheikh Sidi Baba mi nga xam ne moo nekkoon ak Serigne Touba foofu ci réew Mauritanie mu amal nganuk ñaari fan fii ci Touba ci Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalifa général des Mourides ngir dundal kóllëre gu mag gi nga xam ne moo doxoon ci diggante Cheikh Sidi baaba ak Cheikh Ahmadou Bamba kóllëre googu sax mu ngi bàyyee ko woon ci maam Mor Anta Sali ak waajuru Cheikh Sidi Baba ba ci maamam loolee nag la Cheikh Sidi Mohamed Youssouf ñëw fii ci tubaa di feddali ak yeesalaat kóllëre googu ndax Cheikh Sidi baaba nekk na koo xam ne ku bëggoon Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul la ndax way na ko ay xasida yu bëree bëri noonee it la Serigne Touba meloon ci moom ndax Serigne tubaa moom it bind na ay xasida yu bëri di ko ci tagg. mu nekk diggante bu ratax lool diggante boo xam ne dañ ko yàgga dundal ndax bi fi Cheikh Sidiye Baba bàyyeekoo wujj suñu borom Cheikh Sidi Maxtaar mi nga xam ne moo di rakkam ak ay doomam ñoom ñëpp dañoo feddaliwaat kóllëre googu nga xam ne moo doxoon ci diggante Cheikh Sidiye Baba ak Serigne Touba. ñu daan ñëw ci njaareem daan fa fekk si sëriñ bu mag bi ba ci dëkk bu sell bi di Touba daan dox kóllëre googu seen diggante ak doomi sëriñ Touba ba tey ji ci sëtëm yi loolee la Cheikh Sidi Mouhamed Youssouf uldu Cheikh Sidi Baba ñëwaat feddaliwaat ci sëriñ Mountakha Mbacké Bachir ngan gi nag nekk ngan goo xam ne sëriñ bi fonk na ko lool mu teg ko fu kawe ndax gan gi bi mu ñëwee fii ci Touba ñu dalal ko ci résidence Khadim Rasoul sëriñ bi moo déplacé wul boppam dem ba fi nga xam ne fa lañ ko dalal ànd ak ñenn ci njabootug sëriñ Touba gi. kon mbokk yi ñu fa yéene ànd ak yéen dégtal leen ngan gi nga xam ne Cheikh Sidi Mouhamed Youssouf moom la amal fii ci Touba Mbacké ci xalifa général des Mourides sëriñ Mountakha Mbacké Bachir di nganuk ñaari fan doonoon fukki fan ak juróom-benn ci weeru koor atu 1442 ginnaaw gàddaay yont bi salallaahu alayhi wa ak fukki fan ak juróom-ñaar. Euh, wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ganuk sëñ bi bu tedd gi di doomi Cheikh Sidiya di seenu gan sëñ bi neen di seenu gan yéen waa Touba nee na moo fi ñëw tey moo ne mooy jóg ak tànkam ñëwal boppam nee na xam na ne këram la ñëw tey fii mooy première këram mooy ñaareelu këram nee fu mu am ci àdduna nee na li li leen booleeg waa Touba boole woon bàyyam waa Touba muy Cheikh Sidi ak sëñ Touba nee na yàlla rek la nee moom yoonu baayam rek lay jaar moo tax mu ñëw siyaar si wàllu yi wii di Cheikh Mahmadul Muntaxa nee na yittey àdduna taxu koo jóg waaye ñëw ngir dundal si la rek ku tax a jóg nee na dafa ñëw it ngir yeesalaat kóllëre gi Cheikh Sidi ak sëñ Touba nee na yéeneem di yàlla xam na rafet na loolu yéene ji ko indi nee na mi ngi leen di bu baax a baax nag nee na bég na lool it ci lii nee na dara gënt kawet yi nee na nee na lii rek mën a am ndax bu ngeen niroo sëñ Touba nee na wàcc ngeen sëñ Touba nii la meloon nee na jërëjëf nee na yàlla ngeen am am jàmm bu faw incha na moom moo bëggoon a ñëw moo bëggoon a fekk sëñ bi waaye li muy doog a ñëw rek ca déggoon ñu ne mi ngi ci njàng mi alhamdulilah ay qurinati al arwaaxu bi mahbubatiha nee na ay ruu bu fekkee lëkkaloo nañu rek dañuy bëggante ci nee na suñu ruu ànd na benn la daqale ma jamia ustad cheikh al xadim ilaykum moom mooy cheikh mouhamad wulu yousuf doomi cheikh sidiya cheikh sidiya baaba mi nga xam ne moom la sëñ bi fekk woon murtani mooy maam moo jur baayam yuusuf baayam daana def nii daana gane si sëñ fàllu at mu jot euh, daana fi yàgg lool ñëw na seet si na sëñ basiru defe naa fekk na ko sax ci leen ci ànd naag moom ci dem ci beneen dëkk moom it nag nee na loolu lay dundal si moo tax ren ñoom mu ñëw fa ci turu seen famille ñoom ñëpp nee nañ ñoom dañ ne ko bu ñëwutoon ba agsi Touba seen tur ñoom ñoom seen xel du dal ndax loolu daal ne looloo ko tax a gën a jóg ak sëñ bi ba mu toogee ba léegi gisagu ko mu ñëw nag seen tur ñoom ñëpp la fa teewal waa Kër Cheikh mhm. mhm. bi yëpp. <laughs> wallaahi wallaahi loolu mbirum sëñ Touba rek la. xaala Cheikh al xusni xadika illaa min maxtaarahu cheikh alxadim anta ataytana wasalta al an alhamdulilah mundu saat saa faqat saa zamaniya wa saadafa xuduuru hadihi alkawkaba min xafadati cheikh alxadim min alulama al ajilla an hada illa illa tawfiqun min allahi subhanahu wa taala illa tawfiqun min allahi subhanahu wa taala incha allah tawfiqun min allahi subhanahu wa taala mustaqbil mustaqbal bi mu ngi mu ngi noonu qaala anna alhamdulilah wa yastaqbilu ko hada ila min min al istiqbal yastaqbilu ko huwa wa abnaa cheikh al xadim qaala anna insha allah wa ma baadahu aydan yakunu hakaza insha allahu taala insha allahu taala macha allah nee na lii rek lañ foog lañ yaakaar Tuuba lii rek lañ fi yaakaar nee na alalaqa alhamdulilah ma yakfiha shadd axbar sana wala sanatin nee na li ngeen li leen li leen boole kenn mënu ko waxtaan benn at wala ñaar at wala ñetti at lii li boole kër Cheikh Sidi ak Sëñ Touba nee na nee na yàlla rek yàlla lay du layen nee bu du toon yàlla du demee nii nee leen yàlla boole wutoon nee seen diggante du demee nii xam na yàlla rek ngeen xool ci moom incha allah sharaf lii nag honneur la nee na daraja mënta gën a kawe lii nee na nee na honneur daraja mënta gën a kawe lii dara ji mënta gën a kawe la xaal ana kaana yastaqbilukum faqat incha allah bisimilah nee na tey bokk na ci bis yi gën a tedd ci moom ci dundam ba mu dalee dund ba léegi nee na li mu am tey mosu ko am nee na nee yow yaay seen kilifa léegi ginnaaw bi fi doomi Cheikh Sidiye yi nekkatut yow la ñu xoole Cheikh Sidiye nee na yaa gën a yëkkati ko ci ñoom kuñ mën a amit nee na yaay seen xalifa